mooy tey jii ñu ngi tolloo ñu ngi yemoo ci côté enseignement mais nag rafetlu nañ euh, ci élèves yi wala boog pourcentage bi nga xamante ni am nañ ko ci baccalauréat waaw euh, d'abord ñi ngi nuyu ñëpp di jaajëfal euh, ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre jëm ci marathon budgétaire bi nga xam ne but ministère bu nekk dañ lay nattal jox la sa budget nga mën a doxal donc tey nag ñu dalal ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation donc ñuy profiter félicité ñëpp ñi nga xam ne professeur agrégé yi nga xam ne dañ doon liggéey ci mbirum santé jëmale ko ci naka la ñuy dàqee Covid bi wala naka lañ koy wàññiwee beneen bi mooy félicité étudiants yi nga xam ne dañu créer dañu def montre de d'ingéniosité de créativité defar ay gel hydroalcoolique defar ay raxasukaay pour que nit ñi mën a aaru mais aussi dañ gis ay initiative yu mel ni cent mille étudiants pour combattre Covid 19 muy wane ne rek enseignement supérieur du ci en fii mais bu Sénégal soxlawee ñëppay taxaw alors tey gis nañ ne résultat yi euh, am résultat yi ñu am ci bag depuis 1969 amuñu ko woon donc muy waral rek que ne bu ñu góorgóorloo tuuti mën nañ am ay résultats li ko waral mooy euh, dañu gis ne ak enseignement bi dañu wàññi woon programme bi donc am na yoo nga xam ne dafa chaque fois dañ koy wax Sénégal jàngam dafa diis donc bi Covid bi ñëwee ñu gis ministère de l'éducation def ay programme d'allègement du programme ba pare aussi ñu jël def euh, le numérique mettre ko au cœur muy wane na rek digital ak numérique dafa am solo ci réew donc gis nañ ay université virtuelle du Sénégal léegi mën nga nekk di jàng ci xarala yu bees yi en même temps ngay dem di def entreprenariat donc dañ ci gën a pousse nguur gi parce que tey agriculture dafa soxla innovation donc ministère bi dafa am dafa am taxawaay bu mu war a taxaw Euh, aar ndaw yi jàngal leen teg leen ci yoon bu nga xam ne tey master yi ñuy def ci université yi doctorat de euh, thèse yi ñuy def ci université yi waratul rek di nelaw ci tiroir bi Sénégal daf ko war a soxla xam nga tey bu ñu soxlawee ay expertise bu ñu waree defar programme dañuy dem ci cabinet internationaux yi donc baax na tey suñu master yi ñuy def suñu doctorat yi ñuy def étudiant en licence yi ñu mën leen di associer ci programme yooyu pour que bu ñu waree soxla rek ñu xool naka la ñuy parce que am na tey ay France boo demee am na lu ñu naan CRS ay Corée ay Japon di ñu miser ci innovation pour soutenir leur développement donc bu ñu soxlawee indicateurs yooyu baax na bu ministère bi ñëwee ñu saluer accalmie bi nga am bi ñu am en matière de bourse parce que étudiants yi wàññi nañ donc ñuy wax rek nañ gën a yokk renforcer euh, budget bi ñu alloué innovation ak recherche parce que réew yu bëri.

pour que université yi nga xam ne ñu ngi koy nekk di tabax lu ci mel ni université Ibrahima Niass bu Kaolack lu ci mel ni université euh, euh, Amadou Mahtar Mbow mu pare parce que dañu gis ne Sénégal population bi day yokk te population ndaw ñi dañ ciy gën a ko donc comme man maa gën a ndaw ci député yi moo tax ñu continuer plaidoyer boobu université yi nga xam ne ñu ngi koy nekk di tabax nañ ko nañ ko àggali beneen bi mooy une euh, gis nañ ne am na ay ci biir amphi yi créé nañ daawoon nañ créer ay bâche yooyu pour étudiants yi mën a def mën a jàng mais gis nañ ne tabax nañ ko donc muy wane ne rek il faut que nguur gi di mën di déglu revendication yi nga xam ne député yi ñu ngi koy def étudiants yi ñu ngi koy réew mi nga xam ne ñi la ñi décider ñoo la gën a mën a ëpp déglu ñooñu ñoo la gën a mën a def résultat donc xëy na en enseignement supérieur ku nekk boo ñëwee da ngay teg benn jéego mais ñun jéego bi ñu bëgg en tout cas en tant que ndaw mooy ñu am ay formation yoo xam ne ndaw ñi bu ñu génnee dinañ employable sur le marché du travail dootuñ rek dë naam réew soxla na médecin soxla na euh, ingénieur sox mais nañu xoolaat yeneen ku jumtukaay yoo xam ne day tax ñu gën a am emploi mu jëm ci agriculture mu jëm ci innovation mu jëm ci numérique suñ ko ñoŋalee rek incha allah souvenir yi ñu naan irrég migration irrégulière ak ñàkk problème yi ndaw yi di jonkanteel dinañ ko saafara. d'accord ma dégg la ci sa biir kàddu nga ni résultat yi nga xamante ni am nañ ko ci baccalauréat bokk na ci la fait que matières yi ñu wàññi ko bu baax a baax ndax tamit jotul tey jii ñu taxaw def seetlu ci programme bi ñu wàññi di saa pour élèves. en en tout cas je pense que ne euh, ministère de l'éducation enseignement supérieur ñoom dinañ tirer leçon yi war jëm ci éducation bi. Euh, nda jàngum ndaw ñi parce que chaque fois dañ koy wax jàng bi dafa diis mais Covid bi bi mu ñëwee dañu gis dañu seetlu ne programme bi dañ ko wàññi bi ñu ko wàññee résultat yi dafa satisfaisant xam nga tey am na classe yoo xam ne da doon pléthorique da daan bëri nit enseignement enseignant bi du am euh, jot bi suivre ñëpp mais bi ñu wàññee effectif yi wàññi programme yi gis nañ ay résultat yu satisfaisant donc je pense que il faut aller dans ça pour que. Hmm. mooy jëm ci li nga xamante ni moom université virtuelle yi ndax jàppoo ni euh, dafa jural laxisme ci côté étudiants yi waaye tamit ci ñeen na ci élèves yi ndaxte temps bi nga xamante ni ñu ngi koy jël di connecté wu war ci jàng dañ ciy bon dañuy dem sax ba dañuy dañuy dañuy préféré di statut di jaay seenu jaay au lieu. waaw euh, xam nga lépp moom euh, ñun informatique xëy na ak numérique dafa ñëw dal suñu kaw jàpp ma ne laxisme la parce que xëy na ñun ñooy jàpp ne laxisme la mais ñoom. dañu nekk di entreprendre xëy na ñoom duñ ko gisee noonu mais je pense que ne université muy université virtuelle muy yeneen kuréel yëpp yi nga xam dañuy agir ci numérique dañu war a encadrer tey war nañ ne xale bi bu ñu la joxee ordinateur bi du pour rek foo bu la joxee smartphone bi du pour rek statut TikTok et cetera mais mun nga ci def loo xam ne mën nga ci jàng mën nga ci def gis nañ tey ay jeunes euh, dañuy am ak seen smartphone dañuy aider baykat yi pour que seen euh, rendement gën a ñoŋ à for man dama jàpp ne lépp rek dañu war a jiital waxtaan jiital tàggat balaa ñu lay jox outil bi mais bu ñu la joxee outil te tàggatunuñ la donc mooy indi ay dérives sur le net mooy indi li li ngeen di tuddee laxisme mais daal je pense que ni nañuy gën a déglu ndaw ñi parce que bu ñu leen dégluwee ñoom am na lu ñu xalaat am na ñu ñu gisee àdduna bi am na ñoom nu ñu bëgg doxalee am na nu ñu bëgg Sénégal dem fa.